jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file eh, tëngéej ci eh, ko ñu xaar mbay ma jaaga eh, li ñu fi yëkkati nag di suñu benn frère boo xamante ni mu ngi dund ay jafe-jafe ci li nga xamante ni moom ak benn ndaw la boo xamante ne ñu ngi doon bëggante affaire xeebaange ak affaire am doom yooyu yëpp daal di dugg ci li nga xamante ne ni moo di mbir mi ba affaire police jot ci am loolu moo tax suñu ay tànk fii bëgg rek wax waa wasaare li nga xamante nii moom moo ko dal comme ñun waa wasaare ni ñu koy defee saa su nekk képp koo xamante ni rek am nga loo xamante ni def la metti wala loo yaakaar ci ñun ñooy ñuy def déplacement ñëw ba fi nga nekk ñu daal di lay fekk si talal la micro dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bii di wasaare bu ko defee ñu daal di xuus dugg si waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu waa soxna si ñu ngi lay fay di wax onze bi la bismillah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waa di la ziyaara nag di ziyaara tamit site bi bu baax a baax di ñaan uh, suñu boroom kaweel ko lu gën a kawe seen jot ndax awma lu dul coordonné ñoom tey ñu xëy ñëw fi kon loolu maanaam si yëg-yëg la rek ak gën a mën a doxi si tànki farlu ñu leeral li naxari jëmm ji tax. mën nga ñu wax tur bi naan la. waa tur bi boos la waaw. d'accord boss tey waa wasaare ñëw seet si la ci jafe-jafe yi nga xamante ni yaa ngi koy dund wala sax li nga xamante ni moom moo la metti ndax mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir yi exactement rek naka la demee waa yëf ni mu demee maanaam mooy soxna si yàlla moo ñu boole ñu koy wax euh, Fat Diaw daanaka seen kër euh, ki jur yaayam fii la dëkk fii nii rek en face suñu kër nii rek soo ko dépassé tuuti yàlla nag dogal si ñun mbëggeel ñu di ko dund mais jamono di dox tamit ba ñu xam ne ñi ngi bëggante ñu fexe ko ba indi ko ndakaaru waaw xanaa waaw seen waa kër daal ndax xama tamit bu waa ay mbokkam a ko xam ndax bu ko ñi xamee rek mm. ñee dinañ ko mën a xam yàlla def nag bi ñu defee loolu tamit euh, ñu jéem a naxtaan ba indi ko rek biñ ko indee yàlla mi tracé mbëggeelam dakkalu ko mm. ndax ba ñu koy décidel ma nax moom yaakaar ma woon ne dina mës am kon li ma si war maanaam mooy ànd seex moom si muy rafet rek mais après yàlla dafa def tamit waaw ba ñu xamee ne mana magam bu ñuy wax ami camara te yàlla dogal sax ma mujjee ko tuddee tu tànk mu roon ma teral sax ndaysaan di ma mujjee toroxal mais foofu dinaa fa ñëw yàlla def nag euh, bi nga xamante ne nii tu tànk tamit juddu na si doona balaa tout tànk di si juddu xale bi moom lan na doon def fii ndax daf doon liggéey wala ci kër ay mbokkam la nekkoon fi waaw man xaw ma woon ba xam da doon liggéey xam ma ba xam da doon jàng mais daal ñi ngi nekkandoo fii si secteur bi ma koy gis mu may gis ba yàlla dogal fa mbëggeel mbëggeel gi nag li may wax ni 2018 la mais après daanaka li des si 2018 yëpp ndakaaru la ko àggalee ba 2024 bii may wax ak yow mais si biir loolu yàlla mi nga xamante ne nii dara tawu ko jour bi muy dem di ñibbi man maa ko gunge ànd moom si termini si Liberté 5 bi ñoo toog nii nii la toogee ma toogee nii ñu ànda ñu dem ba si termini si mu wàcc jël ay bagages ba may laaj ko sax fan nga dëkk bi ma ko nee fan nga dëkk daf ma joxañ ne ma fii si ginnaaw kii euh, bitigu goro si si ma jàpp loolu rek ndax liñ doon dund si mbëggeel daal bu ma waxee loolu sax loolu day xaw day xaw a neex daal si biir mbëggeel voilà léegi nag yàlla def tamit ma ne fii ñii dégganteex lépp mu ngi ndakaaru de ñiy dégganteex lépp xam nga mbëggeel yenn saa dina xiirtal nga jékki saa yi si ki koñu ki ngay bëgganteel ne ko foo ne yaa ngi dégg léegi benn jour ma toog rek mel ni yàlla moo ma def loolu ma dem. mais li ngeen di bëggante fii yëpp amu leen benn problème fii fi kër gi nga xamante ni foofu la nekkoon seen diggante yéen non non bi muy nekk fii amuñu benn problème amuñu woon benn problème. waaw mooy li ma la expliqué rek nee naa la maamam bi jur yaayam ñu koy wax nday màng sa di yaay si Adama Sow mi jur sama doon doon sama maamu doom bi mu yëgee ne man a xale bi ñu ngi bëggante daka rafetlu toog naa fa añ fa du benn du ñaar ba mu ko yëgee nag dafa doon lu ko neex lool mais après nag bi yëfi traversé ba jëm Ndakaaru fa la lépp lii xew di xew ba nii may waxeek yow yaa ngi doon wax ci bi nga xamante ni débarqué nga ci koñu ndaw si fale ca Ndakaaru lan la lan moo fa xew. waaw bi ma demee mooy comme ni ma la doon expliqué dama dem rek jël sama téléphone woo ko waaw soxna si foo nekk Faatu mu ne ma maa ngi Cees waaw lii la ma wax bu ma nee maa ngi Cees nag affaire bi jaaxal ma fi ma toog mu mel ni yàlla moo mën a jógal nga dem si bitigu grossiste bi falaa tollu net muy génnee seen beddu euh, kër. bi ma séenee daa tiit sax mais def naa ko signe si bët ngir ñu gisante lu waral mu wax ma mi ngi cees te newu fa ndax nangu xawoon naa ko nangul bi ma nee maa ngi cees ndax am nañ fa mbokk mhm. léegi nag après si biir loolu ma dem so euh, fekk ji ko di waxtaan ak si moom si côté boobu mais maa déglu nag euh, foofu euh, maanaam si si ni mu doxalee daal ni ma ko woowee ne ko foo ne mu ne maa ngi cees far yàlla wan ma ko jëxërën xam nga kon ku tedd man moo may wan rek waaw moo may wan daal léegi après bi mu bi ma ne maa ngi Thiès ma bëgg a indi moom débat foofu ma gis ki ñu àndaloon muy oustaz bi xam naa daayira lañ doon dem li may wax ni boobu fekk fa yaay ji yaay ji daa demoon Daara Jolof si këru borom këru jiitleem bu ñuy wax jibika léegi bi fa demee ma it ma wax ak moom jël téléphone am foofu debaa xajatu fa ma daal di dem seen kër laajte ndax seen papa ku siiw la si dëkk boobu di Liberté 5 mbaax a tax mu doon fa imaam fekkew ma ay jamonoom de mais xam naa ku am ihsaan la ku am imaan ku am tawfiix la maanaam tawxiit ku ragal yàlla ay jëwam rafet na loolu yàkkamti woon naa nag ñu daje mais yàlla lii la dogal mais bi ma laajtee na bañ wan ma kër gi dama ñëw dugg nuyoo toog mais damay gis ci kanam yi doonul kenn ku mu neex. mais ci boobu dañu xamoon que ne yow yaay copain ndaw si wala. noo boobu dama nuyoo jaama santeex ñoom ñu laajte sama tur ma wax leen man la boos. Mhm. c'est première fois ñoom boobooy première fois bi ma fay njëkk a teg sama tànk. ndax sama teewaay foofu. loolu la ma doon jàngal. ndax ñëw balaay neex. neex boroom kër gi. waaw ci ay leeral ndax danga ko takkoon wala rek sa gel la woon. waaw yàlla moo dogaloon bëggeel rek. si suñu diggante. ndax man gis nga matière de soxna. du doon lu may discuter kenn. li Serigne Touba wax rek fa laa sukkandiku. daane soxna ñett la. ki yàlla bind nga tax. ak ki yàlla bind taxoo. ak ki yàlla bind nga am si wàlla sa moroom am si wàlla waaw. waaw bi ma toogee nag. maanaam damay gis ay visage yoo xamante ne rafetul jekkul nit kenn du ko wan sa melokaan di ko si xeebee ba di ko wan si visage mu di ko xam bu dee nit la ma xam loolu lépp xam ne teewaay bi neexul ma toog jël sama temps xam naa ne soxna si dem daayira dina ñëw bi mu ñëwee ma joto segg si nopp bi ne ko lii metti na ma trop delloowaat ko téléphone am génn dem dem bay tolloox liberté 6 waaw niñ dundeex man moo ma neexul ndax am na seen benn waa ju ñuy wax seen taawu kër ñu koy wax Paate kamara Paate moom jour boobu sax daa ñëw tuuti yàggul tuuti man ma dem mais du ba mu ñëwee nuyoo nag après dafa dem mais soxna si daan na Paate Camara nag seen taawu kër ma xam ne am na fu ma ko teg daal waaw ma bari lu ma koy dégg sama nopp léegi après bi ma demee nag ba jox ko téléphone mu def ma signe moom moo ma xamal ne ma carrément sa ñëw bii neexul suñu waa kër ba si Paate kamara boobu mu ne sama tànk bu ma ko fi dëggati loolu nag man ci laa jàppe ne yàlla yooyu moo doonul li ko neex ndax kenn ku ne mooy kilo moom kenn ku ne mooy kilo moom te moom mooy dogal pointure bu ne ak si kër ga muy tegu nañuy nangu ndogal mbir mi du cadre melokaan mbir mi cadre sa diggante ak sa moroom la ak sa diggante ak sa boroom boo ko xamee rek doo noppalu doo doo sonn maanaam waaw léegi nag après moo ma xamal yooyu yëpp ba jour boobu bi ma toogee sa am na benn soxna su yëkkati banaana may ma ñu koy wax ami waaw ami moomu tey moom laa tuddee doom waaw bi ma ko joxee nag man xam naa ne kii teewaay bi neexu ko yëkkati ne lii jox ma dinaa ko xéewalu de si kàttanu yàlla mais su ànd su àndul ak bisimilah la ma si dal mën a. moo tax nga jàpp ne ñoom famille bi dañu laa xeeb lan mooy problème bi. li la mooy problème bi maanaam mooy soxna si yàlla dogal na tamit doom juddu na fa nangul nañ ma ma ñëw tudd si man ak sama magu yaay jëlee ñoo àndoon laaj ko moom moomu bañ ñëwee teew rek ak nan nañ leen nan leen doxalee ak ñun gis nga maanaam ñëw nañ nañu nangul nañ leen ngeen tudd mais kenn du leen fi may soxna mooy comme li ma la wax rek te kenn naa ko wax mooy paate Camara boobu ma lay wax te dinaa ñëw si li ko dal ak li ma dal ñoo yem benn àtte amaana bu fekkee sariya da si rendi ah moom dina ko def neneen ak neneen ndax euh, jëmma yi doonul benn moom a fuuf te bu jëloon maanaam tey seetu bu xoolee boppam gis muy weex sama diggantee soxna euh, rakam li ñu si dal dina nangu te yàlla tax ndax moom la njëkk a dal soog maa dal léegi kamu ka nga xamante ne loolu yàlla dogal si moom dégguma si benn problème man foofu laa njëkk a jëlee jàngat amul benn problème mais man daal maay la fañ bi mhm. mais je suis faire la fañ de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul boos boobu damay naan boosu Bàmba la ndax yàlla ak may teral lu ma yitewoo mu jox ma ko lu ma bëgg rek mu jox ma ko aw ma alal aw ma dara mais ay doomu aadama la ma yàlla cërale donte fañ laa mais dama leen bëgg xamal ne leen baatu fañ amul baatu la faj moo am la faj ma waxaat ko baatu la faj ndax maa ngi doon faj samay soxla di sant yàlla di fajal ñeneen ay soxla tamit di santaat yàlla di faj samay soxla doom ak yaayam ak maamam. ci baatu indi handicapé boobu nga wax ndax danga jàpp ne jour ba nga fa demee ci loolu la ñu xool ba daal di dugal xeebaange seen diggante ak yow. waaw mën naa jàpp ne loolu yëpp mu ngi amee si premier jour bi si leen si lañ waaw jàpp loolu noonu ba yàlla mi nga xamante ne nii moo bind jaamam doyloo ko xeebu ko mu may ma fa loolu ngir baatu lafañ googu noonu tey jii bu doom juddoo dinaa mën a am cant goo xamante ne day sax dàq ba faw loolu ndax bi nga fay dem premier jour boobu bu fekk na sa ndaw si nga xamante nii moom nga nekkaloon nekk en état de grossesse wala. waaw ndax xama maanaam soxna si yëf yi dafa bëree bari bari ba soo ko bindoon livre tekka si marché bi def à vente du taxaw yéex ñàkk lay doon xam nga ñun lan moo ñu sonal dëggu ak doxee si jullit mais bu fekkoon dañuy doxee si jullikat yàlla xam na ne duñu duñu teral kenn dañuy toroxalaate ndax jullit dalay teral jullikat dalay toroxal waaw boo déggee moo wax la maanaam si côté euh, tu tànk bi ak li ñu waral xeebeel googu yëpp maanaam li ñu wax la moomu la fañ yàlla moo bind jaamam te yemalewul confirmation baa ngi nii juróomi baaraam kenn tollu seex sa morom kenn ku nekk ak li la yàlla ji jërale ak kenn ku nekk kamu booleel ak fi mu yemale seen vie mais dama si taamu woon mu rafet rek ndax ñoom dañu la ne yow say cër matuñu duñ la may jabar wala luñ la wax. waaw mënuñu ko mënuñu koo wax mais yow bu fekkee nit nga xam nga li dàq si àdduna ngay dox tey bañ a doon magum magum jëmm fexe la doon magum xel sa xel di la motalil mm-hmm. am na yoo xamante ne mën nañ la ko wax mu doon lu la wàccee léegi mm-hmm. ndax wax bal la mm-hmm. mais mën nañ ko jël di ko def seen kanam bu fekkee xam nga nit waaw di nga xam ni mu demee voilà. ci mbiru doom boobu ndax mën nga ñu expliquer kaaw doom ji naka rek la demee. waaw tu tànk bi de ni mu demee maanaam mooy euh, bi yaay booy bi nekkee en état bañ naka ba yu mel noonu bu bu la dalee doo ma defee ne sa yaay mooy jël téléphone am woo la wax ak yow si loolu bu fekkee danga nga koy nangul ngay gor doo si génn da ngay nangu lépp man nag ba mu si ba mu siy wax ak man dafa jàmm santeex man jox ma benn maire bu ñuy wax meeru gox xaw ma bàjjenu gox voilà meer boobu nag moo si doon waxtaan ak man ne ma ah sa digganteeg faatu de. yàlla def na am na lu si lu leen ñetteel billaay avant muy daaneel laa ko teel a nangul laaj ma lu tax ku gëm du xaddi góor du war gis nga yàlla do nan la ko doxalee da ko bind lu dul dañ la bu doon tey Europe la ko bindee barke Serigne Touba bu doon maanaam Europe la bindee ne dañu war a am doom loolu par force day am loolu day am faw rek ñuy nangu ndogal tey bañ a xool ni ñu melante nañu xool ni ñu mel kenn ku ne sa diggante ak sa morom ni mu la ni mu la sàkkee fii àdduna mooy li may faral di wax ñun ñëpp a yem danoo maase di jële maase sewle koo gën a njool mu gën la gàtt koo gën a xees mu gën la ñuul boo fi gisee ku gën keneen wax ma ko ki gën keneen na kenn la mooy sama turandoo Muhammadu Rasulullah gars yi ñooy wax boos rek ma ne boosu Bàmba voilà d'accord boss gannaaw ba yaayu kooku ba mu la woowee jox la ki nga xamante ni moo di meeru gox mu annoncé la grossesse sa ndaw soosu mm. ndax durant neuf mois yi nga xamante ni ndaw si nekk na ko en état jot nga fa dem ngir gis moom wala. yàlla xam na ne teguma fa sama tànk gisanteex maire bi mbaa teg sama tànk jënd ordonnance di ko soxna si si biir kër gi. lan moo ah, nañ ma fa. te it ñëw bi doonul dara leen si neex ak li nga xamante ne moom la yàlla ndogal dogal te neexu leen waaw kon foofu dem fa du neex yàlla loola dogal kay dina am fu ñuy daje bu ordonnance jotee ñu jënd ko jox ko ndax tey li ko dal gannaaw yàlla ñun la mais yàllaa ñu boole ba sos fa loolu kon wareef bu rafet rek moom si war musuma négliger benn ordonnance. yaa ngi doon jënd yi ak lu si war yëpp. barke alxuraan maa ngi jënd lépp lu ñëw léegi yàlla may ñu ko léegi ñu def ko léegi waaw daanuñu ko waaj daal ndax dañoo jàpp tey su yëgee métit ñun dañ koy yëg ndax yàlla moo ñu boole si mbëggeel rek ba loolu am si kon nu mënti demee na rafet rek man dama war a rafetal te taxawu ko ba mu am jàmm lii laa décidé woon mais meeru gox boobu noonu bi ma demee ba confirmer moom mu nangu nangul ma ne ma yaay gor ndax bu doon keneen la doon na kuy kuy waaw kuy bañ te bu ma neexoon ma dugg ñoom si côté yooyu ndax njëlbeenu dundin dafa ñaaw xam nga li ma la njëkk a avant amu doom bi la waaw man neexoon tey ma fekkee damay doxantoo xolu ki ñaan wala fayantoo waaw mën naa mën mën naa leen xaar si côté boobu ba ñu ñëw ma ne du ma ko def du man jëm kaw jëm suuf du man mais weddi du ragal waaw seetal sa der la ni ñu koy waxee si olof xaw ma nag ni ma ko waxee noonu déggee nañ ko noonu xaw ma daal mais du yoon may weddi ne du man bañ la ko waxee weddi woo ne du yow ci neuf mois de grossesse yëpp yaa ngi si doon def li nga xamante ni moom moo war ci xale bi ba yàlla muccal ko ndax jotoon nga dem foofu ngir tudd sa doom wala. waaw demoon naa fa mais balaa may dugg foofu damay wax si bi mu demee ba nekk hôpital sax waaw bi mu demee ba nekk hôpital fekk na ma génn di am lu may lijjanti yàlla def li ñuy wax naan buur bi mooy mooy maye du du nit kuy may boppam. ndax ku doon may sa bopp doo xëy di wuti ji leen da toog rek lépp di la fekk si da ngay jóg jaayante rek suñu borom lépp lu mu bind ne di nga si jot di nga si jot maa am lu ma dem jaayante ji ñëw muy lan ñu ñu may ma di mille francs yaayam moo ma xamal ne ma carrément sax am na lu ñu yitewoo waaw maanaam maam ji maami euh, maami tutànk bi daal moom xamal ne ma am na lu ñu soxla fekk yàlla def man mooy li ma wax rek ay nit laa am ñu yëkkati xéewal googu jox ma ma jël ko jox leen ko mais après dama seetlu ñu ne woon ma bàyyi seen rakk ñu ne woon bu ma fi ñëwati bi soxna si nekkee hôpital ñooñu ñoo ma doon woo di ma accéléré yow envoyé ñu lii bi ma fattaay ay appel daal te dama xam ne ñoom ku si nekk waxoon nga ma sa bopp ma feree ne la seexuma ko ñoom kan laa si war a waxtaanal soxna si voilà mais après nag dem nañ ba maanaam woowuñu ma woow woowu leen xam nga la laa si am loolu di jeudi comme tey dëgg rek ay dëgg li waral seen teewaay du hasard comme jeudi daanaka si euh, ay vers minuit yooyu noonu daal le 18 décembre 2020 si la tuutànk bi juddu vendredi nag moo wara kon nekk tuddu bi yaa ngi dégg si jeexantalu kii bi la rek jeudi bi daal waaw ndax ab aajuma lañ demoon tuddi ji ko man a sama magu yaay jëlee ñoo àndoon balaa ngaa ci tudd bi ndax jotoon nga fay li nga xamante ni moo di frais hôpital beeg yooyu yëpp. waaw frais hôpital boobu noonu laaj neen ma ma ne leen loolu la laa yor am leen ko ngeen maa ngi si lijjanti yi yàlla baax na léegi nag si biir loolu ami boobu ma lay wax moom jël na xéewalam def ko si. ami lan bi la. magam la waaw jëfin boobu nag après ñu ma xamal ma denc ko sama biir xel sama yaay a ngi nele du ma weddi ba may dem am na lu ma leen junj ndax bañ ñëwee maanaam si waxtaanu comme tudd boobu noonu pour waxtaane ko dafa am loo xamante ni dañ ko jëloon dajale ko muy ay kayitu bari sax xam nga boo jàngul doo mën a xam. kayit kayitu lan la ordonnance wala. ordonnance laa ko jàppee mi ngi ne si biir dama ko bëggoon indi mais li ngeen teew te may xaar te mu yàgg lool moo tax xam nga li ma war a indi rek laa indi voilà. noonu la demee. ci tudd bi kan nga tuddee doom ci waa ami boobu laa ko tuddee. ndax ami moom mu bokkutoon ci ñu doon bañ ci famille bi wala. waaw dinaa la wax lépp kay yow nga déggaale lépp. ami boobu noonu ma maanaam ma indiwaatal la si kayit yooyu. Mm. am na seen benn euh, pa bu ñuy wax papa jibika foofu waaw dañ koy jox war may bàyyi mm. waaw ndax euh, sa kilifa ak beneen kilifa yëpp sa kilifa la wareef daal ak waruwaay moo fa am solo léegi moom moomu nag moo dajale woon kayit yi ma lay wax bari na torop boo leen ma mënoon a may ma indil leen ko. waaw après dañ comme ça ñun dinañu ko jël ci PC. voilà noonu la demee nag léegi ñoom bañ dajalee kayit yooyu sama magu yaay bi duma ma bàyyi may fen paa bi moo ñëw dajale lépp ne ma lii de ami moo ko si def ami moo ko ci def te ami moomu noonu nag moom interdit woon na ma rakkam bi may njëkk woo daf ma ne woon sax bàyyil sama rakk xale la nangama nangam ma junju ko ne ko yaag sa digganteeg sa boroom kër ki ñuy wax taaw ñoom ñaar sax nekkatuñu loolu la fa yàlla dogal ma ne jël fa foofu repère am na ko si mag moroom bi indilaat ko ne ko xoolal si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak soxnaam sii di Xadija soxna seeka magoon kon yooyu amul solo lu yàlla dogal la rek léegi nag moom ba ma ko xamalee loolu si la ma si la freiné woon si man ndax dëgg neexul waroon na ba avant muy wax waroon na àtte si boppam ba pare mais ñu ne ma nag kayit yooyu ami moomu moo ko si def. ami moo ko ci def maanaam ami moo jënd ordonnance yi wala ami moo dajale kayit. loolu lañ wax ne ma ami moo ko si def mënoon naa def lépp gën a mën a mën a def lépp mais yàlla dogal na ne loolu ma leen jox noonu mooy dix mille francs yooyu xeebuma ko te dañ ma ko yombalal ma joxaat leen ko di jëliwaat leneen pour jox leen ko ndax nee naa la mooy li ma la wax rek soxna si li ko dal. gannaaw yàlla man la ak moom ñi ko séex kon faw ma dem si ba jeex rek mayu ma sam bopp dara am lépp mën lépp yàlla rek ko mën voilà léegi nag gannaaw ba yàlla dafa dogal ne sax si biir dund bi ak li si xew faw mu dogal si ne moom faw mu jëf si loolu ba mu leer ma nañ léegi nag ñu xamal ma ne moom moom paa Jibi Ka moo wax loolu papa jiit la boobu ñoom seen waajur bi sanc kër gi waaw papa jiit la Fat Diaw ñu koy wax euh, Jibi kooku euh, maanaam seen kilifa kër dafa génn àdduna moom da ko fa wuutu rek mais waroon na doxee comme ni mu doxee ndax kooku kilifa la woon goo xamante ne nii barke alxuraan boo déggee ay jëw mi rafet doo bëgg lu dul gis ko tàllal ko say loxo mu mu defal la yàlla na la yàlla. Mm-hmm. d'accord ñëw ci li nga xamante nii moo di tuut tànk bi. waaw léegi nag balaa may ñëw si tuut tànk bi dama lay leeralal si kayit yooyu li paa bi wax mm-hmm. paa bi ma ne kayit yi ngi nii ki ko jëf. dane da nga koy fay wala walla wala waaw dana da nga koy fay foofu rek la yemale ma jël kayit yëpp te laajal sama magu yaay jee ne leen yàlla baax na far yàlla mi yàlla yàlla nga xamante ne dara tëwu ko te mu mën a àtte rek fi may génnee ba ñu waxtaanee tudd beex lépp may génne di ñibbi soxna si dugg si. soxna sant. Euh, magi sox euh, sama yaay doom ji. ami camara boobu si lay dugg si bi mu dugg see nag. man ñëw laaj ko ko mooy ami ndax man gis naa ko bu yàgg waaw te moom gisuma nag bu yàgg léegi bi mu bi mu ñëwee ba toog ma ne xaar ma dem gis tut tànk bi ak yaayam bàyyi fa benn weccit bu ñu am lu jënd rek comme lii ça fait léegi bi mu ñëwee toog ma ne ko ah, ñu jaama sante ma ne ko soxna ami a ah, dégg naa yaa def lii de xëj na suñu borom lii la dogal di ko si def mooy li ma la wax rek am lépp mën lépp yàlla rek ah léegi après ma ne ko lii dama bëggoon a xam bi nga koy jëf da nga koo jëf ngir yàlla wala danga nga koo jëfoon ngir ñu fay la si mu ne ma dama ko jëf ngir yàlla ma ne leer na si laa dajale kayiti noonu denc ko waaw foofu kon foofu amaatul dara mais xoolal loolu est-ce que yenu na maanaa est que yenu na maanaa moo tax nga ne yenuwul maanaa fayoor moo fa amul jëf nga ko ngir yàlla ak sa rakk Ah, te jëf ji man la waroon yàlla dogal na njëkk nañ ma laaj xéewal ma yëkkati dix mille yooyu noonu jox leen ko ak nu mënti demee buñ ko xeeb wala sax ñu may ku nekk di téye boppam si man ba matale loolu xëy bëgg ko jàppee ab xas déedéet bu mu demee noonu yàlla moo dogal ne maanaam lii dogal bii am nga si loo si war def par force la boo nekkoon feneen tamit boo weeful di nga Orange Money d'accord kon ki nga xamante ni moo di soxna mi moom dafa fay li nga xamante ni moo di frais yi nga xam ne moom moo amoon ci hôpital bi gannaaw ba nga ko laajee moom def la ne dama ko def ngir yàlla hmm. après tourné waat ne yow da nga koy fay loolu wala non non da ko jëf ngir yàlla pare naa si hmm. moo war a dem ñibbi hmm. gisante soxna si jox ko li ma koy jox ne soxna ami mu ne ma ma ne ko gor ku ko lebal xam na ko tamit muy ñaari euh, jëfini rafet yu ma ko war a jëfal si lu ma waxoon a muy cadre mm-hmm. la fañ waaw ndax moom bis ni ki tey mm-hmm. Amina jàpp ne man du ma lafañ mm-hmm. lafaj laa ndax euh, tuddee naa ko doom lafañ manu ko lafañ la doon moom nga tuddee doom moom laa tuddee doom pilis tamit loolu mu ne da koo jëf ngir yàlla kon foo ma tuddee ko doom tamit ngir yàlla door fayu ndax dëkku dóore boo gis dëkku waaw dëkku fayoo ko tas man nag jëfuma fa loo xamante nii war nañ mën a du ndax man lii ba mu metti lool ba muy demee nii man nit dongu laa yàlla xam na ko boo fa roccee li nga xamante ne moom la suñu borom def si man boo leen ma fa bàyyi ak diir boo leen ñëwee suuf ngeen fay fekk lépp day maase. d'accord ci cadre euh, li nga xamante ni moo di bébé bi. waaw bébé bi nag après yàlla dogal na ne bi ñu waxtaanee tudd beex lépp ànd naax samay kilifa sama mag ji fa la ko fekk mm-hmm. ànd naa samay kilifa ñu toog. waxtaane ko ñu xamalaat ñu comme dab. comme dab maanaam. mooy nangul nañ leen tudd mais kenn mayu leen mooy ñetti baat yi ma la doon wax si soxna mhm. ku ko xam jarul ngay dem si benn maa mën ndax fii kenn mënul ku dul yàlla soxna su mu dogal ne di ngeen sëy mhm. yàlla xam na ne di ngeen sëy mhm. soxna soosu noonu ma la wax noonu tey jii nii di la di la génneel confirmation ñett mooy sëriñ Touba moo ne soxna ñett la ki yàlla binda nga tax ak ki yàlla binda taxoo. yàlla bind nga nga am si wàll sa morom am si wàll yàlla dafa bind ne dafa war a mën a doon ku may bëgganteel mesure mbëggeel gi fii la yem mais lii dina si am ay ndogal nag mook ay ndogal lii yàlla dogal moo fa mën a nekk mais nangu ndogal da siy gën a am solo. gannaaw ba ñu la nangulee nga tudd si li nga xamante ni moo di sa tout tànk ndax yaa ngi fa doon demaat di gis si li nga xamante ni moo di xale bi di seeti wàllu yaayam wala. waaw xam nga mooy li ma la wax rek njëlbeenu ñëw bi da leen neex da leen na xari woon waaye yàlla dogal na loolu léegi ñëw par force la par force bu fekkee si affaire dal la fañ boobu noonu ak melokaan ak lépp moo tax yàlla dogal na fa loo xamante ne léegi saa bu ñu xëyee dinañ gis doomu la fañ bi te mënuñ si si dara ak seeni jëfin moo tax suñu borom dogal fa loolu mu judd si ëttu kër gi doom kenn mayu ko sa bopp yàlla mooy ki kay may ku ko neex man na dama jàppee ne suñu boroom daf ma teg fu kawe ndax mu Muhammadu laa lañ ma dippee gars yi ñooy wax boos rek seede yàlla waaw. d'accord gis nañu ci mbiru doom boobu ci biir waxtaan sànq jot na am yoo xamante ni xew na ci ba ay mbiru yoon xew ci ndax moom foofu tamit mën nga ñu am ci ay leeral naka la demee. waaw li si nekk nag lépp lépp bari na amaana dineen am nu ñu lay cofeelee rek bu fekkee yow mën nga juger dëgg tey àtte dëgg soo ma dégloo dégg di nga àtte dëgg te yàlla tax bul faree fenn bu ma tooñee ne ma yaa tooñ bu fekkee ñoom ñoo tooñ mm-hmm. a ah, xamal leen tamit ñoo tooñ ndax àdduna loola rek ah li waral teg fi yoon nag ngir muy àtte yoon la gis nga benn jour dama fa demoon bi ma fa demee ma fay ñëw dem ba à la fin nag ñëw bi doonatul dara lu leen neex yooyu nag avant muy feeñ mi ngi feeñee si euh, bi ma fa ñëwee benn bés jour boobu la couvre-feu di doog a jeex couvre fay si lay doog a dakk fii nii mooy jamono mi fi amee rek ma dem fa yendu fa añee fa lépp dal jaama foo xale bi ndax moom laa fa seqal jàmm ak yaayam ak tu tànk yi fa gën a ndaw kër googu su ma fay ameel nit ak kenn rekk laa fa ameel ak ku ñuy wax ay saate xale la dama ko jàppee jëmmi yàlla mi ko bind mhm. ndax jour bi nga xamante ne dem naa ba jóge fa di ñibbisi fii def soog mhm. foofu la ma dalee de ñoom laa seeti ji woon de mhm. sama tànk baa ngi nii ay damm kese la mais dama koy sante yàlla li tax yëguma métit newuma wooy waxuma dara tu tànk boobu juddu rek ak la xew wax ji ñaaw jeeg yooyu may na ma mbég ba yëguma luy metti su ma la ko wanul nii mënoo xam ne lii da ngay naan kii nii la mel noonu la mës a mel noonu la ko yàlla bindee mais dafa dolleekuwaat dafa dolleekuwaat si biir dolleekuwaat waaw dama demoon seeti ji leen tamit li ma gën a def mbéeg maanaam mooy nootoon ne nit ñi xam nga affaire de couvre-feu kenn mënatul am yite yooyu dox te man tamit sama tu tutànk mi ngi foofu war naa mën a dem di ko di ko seeti ji kon côté yooyu su amee dina ma gën a xaw a sonal ndax euh, man bàyyi laa damay am nammeel te war na maa sol sama dàll seeti doom ji ma dem nag seeti ji leen ba pare presque loolu mi ngi am euh, ay vingt man daal maay maa jóge foofu di ñibbisi xam nga fa laa doxee Liberté 5 ba Padois ndaysaan lépp si mbégte rek ba may dem samay dàll yi ma soloon trois tere soxna si laa yëkkati may ko ko ndax moo ma ko ñaan ak lu mënti xew ñu mën ko jàpp si esprit man gëw ma yooyu ñoo ñuy bëgg xalaat ndax soo waxee mbirum dàll rek dama ko mayee si ñoo jubóowul ak yooyu xel mën na doy waar ndax fii yàlla rek a fi nekk bi muy dogal ay dogalam ay dàll jegew fa léegi ma yëkkati dàll yi jox ko nag doxee tànku neen di zikar di kontaan ak tamit liñ dindi couvre-feu yi nit ñi nekk si jàmm ma ñëw ba Patte maa ngi passé dégg naa oto yi naan euh, oto mille 1200 yi dégg naa ko yi nekk noon rond point 6 mais dogal bu sotee maanaam dangay ngay tëx gumbalu ma continuer dox di dem ba Patte d'Oie jëkki saay rek benn góor yàlla di traversé ma esobe ko naka waaye man de te Tëngéej laa bëgg ñibbi dama ñëwoon seeti tout tànk bi fii mais dama ñëw fii am jafe-jafe oto mu ne ma ah man de Fass Mbao laa yem mais yéegal ma yóbbu ba noonu ñaata la mu ne ma fay ko 500 ndax Patte d'Oie yow kenn du la ko wax ndakaaru nga dëkkee xam nga ale yaa boobu dafa metti noonu la demee nag léegi après bi may yéegee mu yóbbu ma ba Fass mbaaw may xalaata a wàcc mu ne ma kaay mu yóbbu ba Kër Mbaye Fall xam nga Kër Mbaye Fall Grand Mbao lu si topp. soriante wu la Tëngéej mën nga ko njaab ndax ku njaab loolu noonu dox ko ba ba war nga mën a dox loolu. léegi nag yàgg yàggul tuuti rek benn borom Jakarta di traversé mm-hmm. ma def ko appel li mu doon daw sax bari na mm-hmm. mais dama jàppe ne dogal bee sotti ba tey rek mm-hmm. sama xel waroon na mën a ñaaw ma bañ a yéeg mais dogal bu sottee mooy li ma wax da ngay gumba taxlu léegi après ma stoppé mu taxaw bi mu taxawee mu laaj ma foo jëm ma ne ko waaye man de Tëngéej laa jëm boo ma sànnee si juuti bi sax baax na. ma yéeg mooy euh, Kër Mbaye Fall si pont bi côté bii nii booy def nii di dugg Tëngéej côté bii pharmacie bi foofu laa dabi jee Jakarta bi fa la taxawi jee ma ñëw yéeg mu ne ma an say dàll bëgg waruma ko wax kama ko jox naa ko seet nu ma ko waxee ndax kama ko jox ma nax moom la daal moom yóbbu la ma la ma mënal léegi bi ma demee si rond bi daal lañ yem yàlla dogal li si des bi si des yi si des yëpp hôpital laa koy àggalee. principal loolu du ma ko fàtte. tax loolu. yàlla moo dogal ne dama fa war a dama fa war a dama war a def foofu soog rek comme deewu ma si naa sant bu baax. soog bi la demee. soog bi ni mu demee kay maanaam mooy li ma la wax rek sa waay moo ma supporté si Jakarta bi doon dund lu baax ak yërmande ba ndogal am ndax xam ma baax la doon def yàlla wane ka maa la gën a baax waaw lii metti nag man la dal moom moomu sax yàlla dimbal na ko si am na si. am na lu koy metti daal mais taxu ko demee noonu ndax moo fi mën a ñëw ñetti yoon sax seesi ma te moom xam na ma man xaw ma ko man yàlla moo dogal ne nitu nit ñi laa boo gisul jëmm sax mën ngay dégg turba ba. kon daal euh, bi moom nga jëlee li nga xamante ni moo di affaire problème mu tànk yeeg yooyu. waaw déggoo ma ne la problème mu tànk yi avant la woon dogal bi yàlla bind na ko bu yàgg daa dolliwaat dogal rek ah, yaa ngi dégg si benn tànk bi affaire yaa ngi nii fii. mu ngi nii fii ngay gis nii kii sama mag la kii moom ma doon taxaw foofu sama yaay jële gis nga dëgg moo njëkk moom mujj lii ngay gis lan la fii la ba fii lépp ay xar-xar la barke Serigne ba mais mbir mi du cadre lii mais man bi ma fa nekkee nag hôpital si laa commencé di seetlu ak wàññu teke gi xew suñu diggante ndax li tax yaayam doon na fa ñëw de moom sama yaayu doom ji daan ci hôpital bi. ñëw na fa suma ma juumul ñëw na fa ñaar xaw ma ba ñett daal mhm. waaw ñëw gi nag damay wax ne daa dese wér rek mhm. ndax ba may def soog mhm. moom laa njëkk a woo wax ko ko te ba ma ko koy wax mi ngi mel ni comme quoi que dara jotuma ba mu jaaxal ko sax ma ne ko billaay lu am la maa ngi nii Grand Mbao tëdd sapeur laay xaar affaire yi xaw yéex foofu lool ndax tey bu ma amoon ay laaf maa ngi naaw dem fële euh, hôpital. lijjanti loolu ndax yëf yi xawoon na metti nag fekkul kenn si mbedd mi jour boobu la couvre-feu di jeex si dernière heure boobu mais après man dama dund couvre-feu spécial hôpital bi ñuy wax principal waaw xawoon naa fa sonn torop nag affaire yi metti na torop ndax gis nga baaraam bi baaraam bu mag bi boo teewoo boo ko teewoon ni boo ko indee fii fii la lay fekk tànk bi nii la defoon kat dama si tànk boo xamante ne amoon na nattu ba pare ñëwaat amaat ka fa waaw mais damaa jàpp li tax méttiwu ma rek mooy sama mbég mu juddu lool loolu laa sante yàlla. ci mbég bi eh, ni mu juddoo accident bi ni mu amee li nga xamante ni moo xewoon ci famille bi eh, nañu wax ci li nga xamante ni moo di problème mu eh, tout tànk bi ak police bi lan la si doon wut. waaw problème mu tànk bi mooy comme lii ma wax rek nee naa la yooyu yëpp da see xewee dama yeeg yooyu yëpp ku doon nit loolu war na la mën a jàngal fa laa léegi. di ñibbi yàlla dogal ma def soog boo ma jàppaloon xolu ki ñaan di ko bàyyi xanaa su ma dee doo ma jooy de. mais naka la mbir mi def ba teere ji ci loxo yi yoon. waaw ni mu def nag ba teere ji si loxo loxoy yoon maanaam mooy biñ demee nag bay du dundax man ndax dama leen ba ma nekk hôpital dama ne xale bi indil ma ko ma gis ko ndax li ma dugal foofu wóoruma woon ba xam dina ma génnee boo gisee sa leer rek dina gën a neex ma forcé ka si xam nga mu bañ si. mais dafa tombé woon ak côté corona bi ma gën ko si nangul mais tey su ma demee ba génn hôpital ñëw suñu kër di dund ak métit si ay bési yàgg lool war na ma ko mën a indil dañuy waxante dëgg rek war na ma ko mën a indil ndax bu ma xoolee sama doom su ma nee massa sama bopp massa bi fajul liy métti demee dina wàññi douleur bi léegi bi yàlla dogalee ma wax ko loolu mu gàntal ko moom si mu gàntal ko ñëw fi ba tey ba toog naa fii sax anniversaire am boobu may wax noonu si deux mille deux mille vingt et bi ndax waaw deux mille vingt et bi la avril boobu su ma juumul daal mais tombé naa anniversaire am maa yëkkati xéewal jox ko te pourtant maa ngi si métti temps ah. mais mbokku taalibe ñoo may jox xéewal may jël di ko jàllale ngir mu koy dimbale tu tànk bi fenn daal lañ may xasee mooy si affaire bi mu nekkee hôpital te nee naa la dama koy wax waxaat ko wax nga ci affaire hôpital bi mooy question bi ba léegi laa mel ni tont bi ñëwagul maanaam plainte bi police bi nan la def ba dugg ci mbir mi. waaw xam nga mooy li ma la wax rek yëf dafa bari ba da ngay cof fii cof fii rek sa xel moo lay mottalit nga xam ne kii li muy wax da di dëgg woowu ma leen fi ngir sos wala ngir tappale damay wax nii mu demee dafa bari rek. dafa bari mais gis nga maanaam comme noonu ma ko toppee noonu pour mu indil ma ko fi mu bañ. Mm-hmm. ba yàlla dogal may mën a dem di def euh, rendez-vous mm-hmm. dama fa daan jaar barki Serigne Touba ak sama métit lépp damay toog jël sama tànk bi nii tàllal ko fenn ndax feer yi mi ngi si métit bu métti mais tànk bi mooy tax du ma mën a sentir dal lu may métti daal léegi nag dem naa ba xam ne ñii ñii mooluñu daal wax fa dëgg yàlla na ma yàlla jéggal si kàddu gi mais lii dafa jekkul dafa jekkul ndax yii moom boo si wax da ngay am nooy waxee sa kàddu daal ndax lu ko moy sa nitu bopp dina la suivre ku dëkk feneen sax nga waxee neneen mu dëkkalee la feneen te meloo noonu ndax boo xasee bay wax rek dafa dafay daa doon loo xamante ne da nga war di bàyyi xel si la ngay wax mais gis nga xale boobu li ma leen si topp ñu bañ lépp benn jour daal maa toog mooy boobu senegal si la jëlee woon coupe bi coupe du monde coupe d'Afrique bi xam nga ñu ngi woon ndakaaru di ko feete lundi boobu fa la ma fekk yaay xale bi bàyyi ma xale bi dem. ba may ñibbi xale bi dama ko joxe foofu dem ñibbi xale bi sama beeke yi la jàngee dox barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul samay beeke la jàngee dox loolu di doon mbég dem ba doxam mokku ah avant ay waaw xeebeel yi di gën a satiré maa daan ànd moom di dem si bitig ba mais du kenn ku ma jubal foofu si kër gi ndax ñoom ñoo xëy rek indi seen bañeel mais man defuma fa kenn lenn nit bu la xësee ba xeeb boo jëfoon àdduna ak la sa biir du safe léegi nag man dem naa ba xam ne ñii dañ may ignorer sama doom ndax yii si xew ma bàyyiwaat ba benn bés le 14 février 2022 ma ne xale bi comme yàlla dogal na ne ñëw naa fa def naa fa soog gisuñu loolu indi lu ñu ma ko hôpital ba ni ma génnee hôpital nekk fii yàlla di ma may wér ba ma mën a dem di faju indiwuñu ko ba tey dinaa jaayante bési bési li ma jógtee nii jógteewu ma si lenn lu bon ba may dem ay kayitam daf ma topp këyitu këyitu juddoom ndax xamala lalaay bañ ma yor di dem nga téye ma ne ma xale bi lu indi si ay wax mais bu fekkee da ngaa ñëw ma wan na confirmation nii nga liir di nga xam ne maay baayam ndax suma si jógoon lu bon yàlla daf may toroxal ana ñu fi sàcc ay xale di am problème waaw dëgg moo fa nekkul mais man nag ba ma koy jël dama jógoon pour indi ko fii rek santale si yàlla bu baax ak si yenent bi si leeram gi mu génnee jërëjëf demoon foofu ngir dem jël xale bi nga xamante ni sa doom la indi ko ci kër gi nga xamante ni mu fii nga dëkk wal waaw dama demoon jëli ko pour benn yoon boobu ndax lii xew nii xamoon naa ne day am xamoon naa ne day am. ndax yaayam déggal ma la wax su ma fa ñëw nii ba mu jox ma xale bi mooy jour boobu ma lay wax da si doon mel ni maanaam kuy sax kooku baay toog ne wuy téléphone def ay affaire ah, ma jàppe ne moom la rek ak téléphone ama ah, mais bu fekkee am nga jàng da ngay naan lii kuy jéem a naxaral nit ki la rek ba noonu la ma fa dénkaane xale bi dem jour boobu bi muy ñëw fekkuma fa léegi nag man loolu maa ko volonté woon pour jël ko indi ko fii sant si yàlla bu baax ndax xew-xew bii laa doon bañ xañ gi tere ma gis sama doom ba mu dee aw ma si lu dul lakk na dee na ma ñëw suul fañ ma doon tere bi mu deewee lañ ma ko yombalal muy seen ëttu kër yaa ngi dégg léegi ñoom bi ñëwee fii nag ba ma jël si xale bi indi ko fii def benn diir bu ndaw laa def ndax canta gi boobu mat na maa ngi si mbégte bu baax ndax comme yàlla dogal na ñëw na fii rek alhamdulilah jërëjëfe Serigne Touba. mais bañ ko jëlee dañoo waat dem police police yu Tëngéej bii sosol ma fa. sosal la kay sosal mënul weesu dem toog ak commissaire bi kooku libaas a tudd xaw ma accident xaw ma waa commissaire libaas daal ñaar yooyu la si wuyoo ñu ñu sosal ma fa ne man ba ma jël see xale bi dama doon xaru ana ku gëm yàlla gëm Seydina Muhammad yaakaar Serigne Touba. fi dunya wal axira ngay xaru dee li si dàq mooy nga dee deewu noobul yàlla dogal nga dee si anim bu rafet. mais ñu jékki-jékki bi nga jël see xale bi da nga doon lan moo tax loolu. waaw ndax dañoo ñëw fekk ko fii ba ma koy jël yëgalu ma leen ba ma koy jël yëgalu ma leen nan laa ko jëlee loo gis rek waaw xel mu sell la ak euh, bataille psychologique ndax jàmbaar du xeex du xuloo day muñ rek ba am li mu bëgg. ba may ñëw foofu dama soloon benn tengaade tegoon ko fii sama bopp ak sama benn saak bu ma defoon kayitu xale bi ngir maa ngi sóor ñu dab ma naa maan foo jëlee xale beeg nangam ak nangam yaa ngi dégg yooyu yëpp prévoir naa ko moo tax ma jël këyit mais yëgalu ma leen ko ba may dem nag dama fa bàyyi tengaade bi ah. yaa ngi dégg est-ce mhm. bàyyi fa tengaade bi léegi xam ma tey su ma àndee xale bi si biti ñuy gis loolu mhm. dina ne kii dina ñëw dina jël si waale lii waaw ma ma basé wul leen fii mhm. woo xale boobu ma lay wax la moom rek laa fa amel ak te jéggalu naa ko donte xale la bi ma ko bi ma bi ma bi ma yollee noonu nag ba dem jël xale bi indi ko fii yàggul fii ma accès mu am temps tuuti ak fii ñu accès benn la ñoom it ñu ñëw jël ko ma yombalal leen ko mais bi ñu demee police nag dañ ma doon sosal ne man ba ma jëlee xale bi dama doon xaru ndax fekk nañ ma sama néeg lañ ko jëlee te ñu ngi ko jëlee sama ëttu kër fi ma doon rêve fa lañ ma fekk ak moom barke alxuraanu karim fa lañ ma fekk ak moom ñu jël ko après dem police nag ne man dama doon xaru wax ko commissaire boobu man kooku moom ma woo téléphone su ma juumul ay 9 xaw ma 8 yooyu ne ma jóob ma ne ko waaw mu ne ma commissaire xaw ma lan Tëngéej gisoo convocation ma ne ko déedéet mu ne ma dañ laa soxla kon ñëwal léegi ma ne ko maa ngi ñëw de commissaire yoon moo woote te war ñu jalgati yoon boobu man sama xel demul sax si. ñoom dem nañ ne dem nañ foofu maanaam dugal ma fa bàyyi ma ko woon xel daal léegi nag après bi ma woowloo ma ne ko man kat dinaa ñëw mais xam naa ne ñëw bi doon luy gaaw bi njëkk yoruma paas ndax xam ne xaw nañ am distance beneen bi si topp ay beeke laa yor mun nangul ma loolu xaar ma presque maa ngi fa ñëw ay dix heures bi ma fa ñëwee ñu toog ñu waxtaan mu ne ma ñii laaj ma lu xew si seen diggante ma expliqué ko nekk kii kii ñu ma indee fii de sama doom la lii ba ma ko fi jëlsee lii de laa si jublu woon ndax xam naa ne dañ maa xeeb te bëgg nañ ma féewaleeg sama doom yii dama ko doon gis moo taxoon rek ma def ko mais jugtewu ma si dara dara dara dara lu bon mais nag dañ ma fa sosal ne dama doon xaru ba ñuy jël si xale bi si néeg bi lañ lañ ma fekk ak moom ma am lu ma ko jox leer nañu ñi fi la leen fekk maanaam gis nga ñoom ba ñuy ñëw fii di jël si xale bi fekk na fi ñu bari ñu toog di seetaan mais kenn xamul ni mu demee ndax fii senegal la xamuñu ki tooñ de ki fayu rek te man loolu ma doon def noonu mbégte laa si jublu. d'accord mbégte ci mbégte boobu euh, dégg naa ci say biiri wax sànq nga ne euh, dañ la woo ne la xale bi daal dinay génn àdduna ci li nga xamante ni moo di ci lakk ndax mën nga ñëw foofu tamit nan la demee ba xele bi génnee ci àdduna. waaw avant mooy ñëw foofu foo ma leeralal la fële rek yëfi daa bari waaw dañ il faut ñu il faut ñu tënk li nga xamante ni moo di wax bi tamit ndax yenn saay bu mën a guddee nit ñi duñu mën comprendre bu baax histoire bi réel naka la demee. waaw histoire bi ni mu demee nag mais comme si côté boobu laa lay bañ ma sosalee foofu moom yaayu maamu xale bi daana commissaire bi bu ma ko woowati li ma la mille ne de la ne ma bàyyi doomam bàyyi seen kër ñett yooyu dama koy nangul mais trois quatrième bi muy sama doom mënta nekk sama doom la wax fa dëgg yàlla. léegi nag aw ma si lu dul loolu noonu interdit ak lépp ma xam ne yoon amaat na ma laaj ko moom nu may tegee si yoon ba mu yóbbu ma tribunalu Dakar fu ñuy wax kii garage la Dior dem naa fa xawma fa kenn mais boo àndeex yàlla jarul tiit jarul ragal ndax bu loolu bu fekkoon dëgg la polisu Tëngéej bi lañ may denc yóbbu ma rëbës waaye da dul dëgg nag moo tax nag mu demee noonu bi ma demee foofu nag ma expliqué leen affaire yi nu mu demee. ñoom it ñu may teg ci code di ma teg ci code ba tribunal commencé di àtte ba ñu defal leen convocation lu toll si quatre fois ñëwuñu parce que yoon la te nga ne yow danga demoon si yoon loolu yoon la. lan moo ma jaaxal di koo si woo doo ko jot. kan la jox dëgg man la jox dëgg ndax daf ma laaj ba xam da ngay xëccoo xale bi pour jël ma nekk déedéet tribunal ma nekk déedéet man nañ ma ko fa bàyyil rek. yombalal ma saa bu ma ko namee looloo taxoon ma sonnoon ci kayiti de loolu kese mais xëccoo ma jarul xëccoo nu ñu mënti doxalee bu yàlla defee mu màgg xàmmee ràññee dina découvrir baayam fi mu nekk mu ñëw seet si ko waaw xale bi nag ni mu génnee àdduna mooy li ma la wax rek tere nañ ma ko tere ma ko gëj a gis féewale maax yaayam ba dem mayee ko mu dem sëyi ji waaw Pikine waaw xëccoo yooyu noonu mu doon def nag ngir àpp moo tout tànk ba mu ko leeree ne day sëy ji waroon na moo mën a jox tout tànk bi ñàkkuma ku ma ko dénk wala man ñàkkuma nu ma ko mën a yoree ak lu mu mënti doon mais jël na ko si liñ ma expliqué man lii laa si am lii laa si am dañ ma ne da ko jël dénkaane ko moom moo ma ko xamal boppam sax si benn vocal bu ma doon laaj xaalis pour ma envoyé ko ko ba ma déggee mu ne ma envoyé ma 3000 ma envoyé ko ami mu mag mooy ki ma tuddee xale bi foofu rek laa découragé ndax bu demee ba mën a engagé sëy ji na ànd xale bi moom bu ko yoree garaawul mais dénkaane la sa yaay mën ak saggante gi siy am du dal yaay yaa ngi dégg léegi nag aw ma si lu dul sa doom lakk na ñu ma ko wax lëndi bi ma ko waxee lundi presque mooy bi Sénégal fu baleex euh, Gambie presque ay vingt deux heures vingt trois heures yooyu noonu heure boobu mënumaa dem fenn ma nekk léegi bàyyil ba suba bu subaa dinaa fa ñëw léegi ma bàyyi ba suba am lu ma lijjanti woon xaw a yéexe yàlla def mu xaw a jàppandi sama benn mbokku taalibe bu ñuy wax Dembis moom xam na ko bu baax ndax ñu ngi daan déggante ba kooku sax daan ko dooleel xéewal weef bi mu wut man maa ko ko wutloo ngir yombalal ko yërmande rek donte féewale ne ñu de barki Serigne Touba an sama téléphone loolu balaa ngaa ñëw ci wéef bi il faut nga wax ñu exactement xele bi maanaam lan moo ko lakk ci ñoom lan lañ la wax. ak moom ci naka la ñàkkee li nga xamante ni moo di bakkanam. waaw mooy li ma biñ la woowee tamit demoon nga foofu ba gis xale bi wala. mooy li ma la wax rek mooy lundi boobu ma la wax ne si lañ ma ko wax ndax dama programmé woon ñu gisante si dimanche boobu lundi bi loolu di xew fekk dimanche bu njëkk bi lañ njëkkoon programmé ba mu nekk boo fa ñëwee nga yëgal ma comme danga ngaa sëy ji moom amatuma maanaam lu may wax ak yow si lu bari si tutànk bi laa war a debaax yow léegi mu ne ma dimanche su ma fa ñëwee dinaa la woo ñu daje fa mu ñëw fa sama ginnaaw envoyé ma vocal ma dégg baatu xale bi ma ne ko waaye yow dafa mel ni yaa ngi foofu de mu ne ma waaw dama fi jaaroon rek mais baal ba dimanche bii nii mooy dimanche bi nga xamante ne nii moo jot si ëllëg si ñu xamal ma ne ma daa lakk dimanche boobu noonu yàlla def déggantewuñu si ow ma ko lundi bi moom ma lay wax noonu si la ma woo maa sama yaay jee ñoo taxawoon di déglu waaw ay wayu Sonko sama sama kële uffeur bi noonu rek tuuti appel bi ñëw yoruma crédit ma dem jënd crédit woo ko ma ko woo mu xamal ma ne ma sa doom lakk na bi ma waxee loolu tamit mooy li ma la expliqué ndax xaw na guddi ma ne léegi baal ma bàyyi ba suba am lu yàlla def sutura ma yor ko bëgg fa dem woo ko nekk fan ngeen nekk mu ne ma ñi ngi principal sama xel ne yar ne maa fa njëkkee est-ce que du kon maanaam la ma fa bàyyi moom la may mottalil moo xam dina dund wala moo xam daa dee mais mu dundoon rek laa bëggoon amoon naa yaakaar si moom trop te dara gënumaa may cant lu dul lafañ gi doon wax ak xeebeel gi moo tax doom juddu fa yàlla bëggul loolu bëggu ko de te soo koy wax mu lay mere da ngay jékki saa gis lu looy daal nga ne dafa am lu ñu ma def fekk kenn defu la dara yaa ko def sa bopp. ci lakk-lakk boobu ndax ñoom expliqué nañ la exactement lan moo lakk xele bi. waaw mooy li ma la wax rek nee na daf ma woo ne ma xale bi lakk na ma wax ma laaj ko loolu nu mu mën a demee noonu mu ne ma magam la ko dénkoon si liñ ma expliqué rek man loolu laa xaw a jàpp ñu ne mag ji da doon tàngal ndox si buntu saal bi xale yi nekk fa di bëre léegi nag sama doom moo si loru lii laa si am yaay ji envoyé ma photo ba tey ne ma xoolal mi ngi nii lii ko dal vocalu ma wax ma si dara bañ na ko ba benn xaritam bu dëggu ndax dëgg nu ne lay feeñee confirmation yaa ngi ne sama téléphone soo ko déglu woon du ma du ma wax du ma wax de loolu rek mën na maa waxal ndax benn xaritam la doon waxtaanal ba di ko xamal lii si am yëpp ba mu nekk man bu ma ko yëg si lakk gi si lakk gi ndax man nee naa la lundi boobu la ma si xamal ne ma lakk na mardi ma bëgg dem xamal ko ko sax ne maa ngi nii di ñëw mu ne ma jarul ngay ñëw génn nañ hôpital lakka bi garaawul mardi ba xolal ba àjjuma ñu woo ma ne ma sa doom dee na lii laa si am waaye gisuma ko si bi may dund xaw ma fan la lakk léegi xaritam boobu moo ma envoyé photo bi dama ko gis rek sànni sama téléphone te moom nee na ma lakk bi garaawul ma nekk ko maa ngi fay ñëw mu ne ma jaru ko génn nañ ma ne ko fexeel ba bu ma naa fexe ñëw Liberté 5 rek nga génneel ma xale bi mu ne ma yàq suñu waa kër jubóobu leen bu fi ñëw benn toogal ba ñu am solution dinaa la woo. bu la neexee ma envoyé la lépp nga dégg. d'accord tuuti rek gannaaw ba la xarit bi envoyé photo xale bi yow fan nga gis ne xale bi moom moom moo lakk si tànk bi si bakkan bi wala fan. barke sëñ Bamba lii daal laa gis ne moo lakkul benn côté bii mais lii lépp. doo ma jox téléphone bi ma wan ko. noonu la demee maanaam lii lii daal laa gis ne ba dalee lii moo ñorul mais lépp ñor boo ko xoolee yow dangay jullit di nga tuur xéewal barki Serigne Touba mais nu mënti demee rek man lañ waroon mën a njëkk a teel a prévenir ba lii xew di xew mais aw ma si lu dul sa doom lakk na sa doom dee na may ñëw doo doo fa ñëw yàq suñu waa kër jubóowu leen fi temps bi toll noonu ak bi ni mu demee man mii baayam aw ma fa xaar damu war a dem xool. xale bi ñaata at la am. xale bi ñetti at. waaw disu décembre bii la am trois ans. ba sëñ Bamba te chaque année ma defal ko waaw envoyé ko lu jar lu jar ci lakk-lakk boobu ne biñ la woowee ne la xale bi lakk na ñu teg ci ay fan ñu woowaat la ne la xale bi génn na àdduna ndax yow papaam dem nga ngir jullee sa doom daal di koy jébal ci këram gu mujj. waaw dem naa fa de. mais naruma woon dem nag ndax dama am ay kilifa ba may dem ñoom laa jiital ñuy samay kilifa waaw kon su demee noonu nag dama war a déglu samay kilifa ndax bu dul dara xañeel gi xeebeel gi xañ ma àq yelleef si sama doom ba yooyu xew kon bu ñu bu ñu toogee oo ma ne ma sa doom génn na àdduna dina la jaaxal surtout ki nga xamante ne moo toogoon ci kanamu commissaire muy maamu xale bi ne bu ma ko woowati na ma bàyyi ma nangul ko loolu depuis deux mille vingt deux deux mille vingt quatre bii ma la wax si àjjuma ji mu woo ma ne ma sa doom génn na àdduna loolu est que xel yenu na ko oote googu mu mujjee def mënu ko woon njëkkee di ñu dimbali si xale bi xale bi yàlla dogal na ne yaayam mi ngi sëy par force la yàlla loolu la dogal mais nañ ma defal man sama doom di ma ko yombalal. d'accord d'accord ki nga xam ne moom moo doon tàngal ndox ba xale bi daal di ciy lakk ba génn àdduna. billaaye mënuma la ne kii la. xaw ma kan la. te it bi ma demee foofu si dëj bi ndax li tax sax ma dem si dëj bi sama kilifa gi ma fa àndaloon laa ko wax avant may dem fii ma toog ma expliqué ko affaire yi bëggoon nag denc xale bi fii si Tëngéej mais boo xoolee li ko dal soxol maylo nga ko fay xaarloo di lijjanti ay këyitex yooyu aw ma si lenn lu dul ñëw teew ndax gën naa ko gis ba muy dund dernier visage bii may xool si moom te si biir morgue bi laa ko xoolee doon so xoolaale lakk geex yooyu ak liñ ma envoyé si photo bi mais benn lii rek moo des lii mais lépp ñor lépp ñor laa lay wax affaire bi nag jaaxal ma torop ak fan la xewee woon ak kooku noonu moom bi xale bi di loru foofu yàggaay googu ba mu siy ñor fan la nekkoon ak fu ay xale nekk nan nga fa mën a di tàngalee ndox beneen bi ma siy tegaat tamit mooy ba mu ko tolloo foofu mu koy dénkaane mënoon na ma ko jox mooy li ma waxoon sànq mën naa ko géral sama bopp wala samay mbokk waaw ndax ba ma gisee ñuy xëccoo man kayitu juddu laa xam ne am na leen luy xew. non non xëccoow ma ndax niñ doxalee fii moo tax ma ne bëgguma te xëccoo gis nga xëccoo soo koy def yàlla da koy récupérer si nu mu gënee gaaw. ndax danga nga dugal plainte yow tamit contre ñi nga xamante ni moo di famille bi nga xam ne ñoo yoroon xele bi. waaw man daal fu mu toll nii nii dinaa si dox wax si bàyyi leen ak dama bëgg ngeen dégg ma bu baax dama leen bëgg a bàyyeex suñu boroom après boole leen ak sama moroom waaw xaw ma nag dégg nga wax xaw ma voilà suñu boroom mooy yàlla liñ ma xañ a gis sama doom ba mu dee ñu yombalal ma ko depuis deux mille vingt deux ba deux vingt quatre neexul te terewul nag yaa ngi doon dégganteex yaayam wutloo ko Wave depuis 2021 di ko dimbalee loolu donte nekku leen de mais lépp si ma yërmande mais maanaam mooy man dinaa dem si yoon ñu jugeel ma ba xam lii nii da di dëgg bu fekkee man maa tooñ ñu teg may daan maa ngi ay preuve nañ loo xamante ne xaritam moo ma ko wax ndax bëggul woon mu xamal ma si lii ndax nee na su ko maanaam anam bi nga xam ne xel bi ni mu lakkee jour bi mu lakkeex ak bi mu lakkeex li ko si dal lépp bëggul woon man ma xam ko ba naan kooku Ah? ak ki mu doon bëreel waa kooku nu mu def moom it si biir lakka yi nan man daal yëf yi doy na waar doy na waar doy na waar xaw ma ban magam la nag ba ma demee si dëj bi am na benn góor yàlla boo xamante ne nii moom sax yëf yi da koo umpoon ñu koy wax vie vie Fall si biir kër gi la dëkk de su ma fu banaan ñëw nii moom laay composel tout tànk bi ak booy ndaw yi ndax sama mbokku taalibe la mais bi ma koy leeral lii keroog dund nii daane déedéet yow daal li nga bëgg euh, topp ci yoon mooy naka la xele bi lakkee bi muy lakk euh, xele bi nga xamante ni moom la doon bëreel moom ndax am na ay lakk-lakk wala. waaw man li ma la wax rek loolu loolu moo si am xaw ma ba xam fii la lakkee wala fële mais daal liñ ma wax loolu rek laa jàpp sa doom lakk na may waaj a ñëw yaayam na ma jarul ngay ñëw lakk bi garaawul te génn neen hôpital bul ñëw suñu kër ndax jubóowu la wax ñoom toogal ba ñu am solution solution bi nag àjjuma laa si jot. mooy sa doom dee na ki ne woon bu ma ko woowati muy yaayam Adama saw moo yëkkati téléphone am sañ nga yëkkati téléphone di ma woo ne ma sa doom dee na waroon na xalaat nag ndax am na lu mu waxoon sa police ma ma ma nangul ko ko ba fii ñuy waxee nii bu fekkoon lu ma kee wax la sax garaawul mais kee waxuma si dara ba nii may waxee ak yow après li des moo sama mag ñoo ko doon coordonné waaw ndax am na yëf fu mu lay toll da ngay mer ba ku dal moo lay mën a waxtaaneel bari Serigne Touba léegi nag man dama si bëgg comme na ma doxee woon si yoon yoon yombalal ma ba ma jox leen seen papier xamal leen maa ngi fay ñëw ñu may menacé ndax bu dul woon dëgg du ma fa am dëgg. d'accord xale bi mooy xale bi mooy sama caat. waaw yàlla nag tëral na ma benn tout tànk bu dëkkee nii si ginnaaw nii rek comme dab benn problème ñoom ñaar daal dee moo leen taxaarle te yàlla na saa bi maanaam waaw. oyofal suuf suuf si waaw kaw tu tànk bi caat bi mais taaw bi moom yàlla na ko yàlla may gudd fan mi ngi fi dimanche bi mu fi ñëw nii dimanche la fi ñëw astafurlah jour bi ñu fa baleex kii bi si la ñëw ñu ànd si cosmetique bi am lu ma ko jëndal programme pour war a gisanteex euh, ñun ñett ñëpp ñu gisante waaw d'accord kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa bi yëpp daal dinañu koy waxtaanee lan tàggoo ak li nga bëgg exactement la. waaw sama bëgg-bëgg kay maanax mooy li waral ma woo nii ngir ñu waxtaanee ko dama bëgg ñu gën a leeral rek ndax dafa jot ñu bàyyi ay affaire de lafañ ay affaire de meluwaay wala kii lii la kee lee la kenn melu fi nen ki fi mel nen kenn rek la muy allahu waaxidun muy yàlla. lu mu dogal si suñuy diggante nañ koy nangu te xam ne lii war a am rek mooy am tey bu dogalul woon ma séq ak tutànk bi doom du ma fa dem di jëli ji soog Grand ku fa yem pour nga àgg Tëngéej bareetu boo waaxoo àgg mais dogal la rek mais daal damaa bëgg lii góor yàlla yi tey dund dëgg buñ déggee lii ñu gisee dëgg wax ma ba xam man maa tooñ waaw maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen jéggalu nag seen teewaay bii sax amaana xaarandiku bi liñ si waroon waxtaane lépp lépp lépp lépp buñ ko waxoon fii ak la sa xew lépp gén naa ko si ku tedd ki wax ma la koor gii di ñëw mais yeneen yi ñëw dinañu fi fekk ndax dafa bari daal te man dama di jàmbaar rek moomu fi tej ba nii mais bu fekkoon yàmbar laa ak ku mënul muñ heure bii kenn waxutu ko ñii li ma dund mu metti si ñooñu ñii ma dëkkal ñoom ñi xamuñu si dara barke Serigne Touba Mbacke lan laa leen xamal tudd ak xew-xew gii laaj leen mi ngi nii leneen li ñoo ko gisal seen bopp fa laa jóge def soog ñu may taxaw sonn bay bëgg a dee ana ana lu ko gën a metti waroon nañ ma nangul sama doom rek mais maa ngi ñaanal tamit site bi mu gën a waaw ndam sa kanam kanam kanam kanam di wax soxna si ma yàlla booleel ba mu waral lii moom it yàlla na ko saa borom bi defal jàmm bu baax yàlla na yàlla defal jàmm te bëgg naa na ngeen leeralal ma lii mu leer am leen jàmm nag waaw maa ngi si woo nag képp koo xamante ne lii mën nga ma si jàppale ngir yàlla ak yenent bi ñun ñëpp ay jullit lañ te jullit lu naqari kenn ka rek war na mën a naqari morom ba yàlla nag dafa sàkk si ñoo xamante ne dañoo dëggu mais daf ñoo bindaaleel ñeneen ñoo xamante dañoo dëgguwul te ñooñu ñi ngi yàq waaw ñi ngi yàq société bi ñi ngi yàq jublu jublu góor yàlla yooyu nga xamante ne dañoo jublu ku tedd ki man amatuma woon dara lu ma naqari amatuma woon dara lu ma naqari su ma xalaatee xale bi rek xalaat sama bopp rek damay kontaan di continuer di mer di maîtriser nag gis nga wax balaay mën a jot mhm. nga wax ko fi mu waree mhm. mer balaay jot nga mer ko fa mu waree lii moo waraloon lépp maa ngi wax ñëpp nag ñu jàppale ma si ngir jëmmi yàlla ak yonent bi Serigne Touba mhm. waaw jéggaluwaat na bu baax. merci beaucoup mbokk internet yi doon safoo di seetaan site bii di wasaare nii lañ leen ko waxee woon tey jii ñëwoon file ci tëngeej seet si suñu benn frère yaakaar naa ne waxtaan bi yëpp daal di ngeen koy dégg naka la commencé ak xale bu jigéen boobu fa doom ji naka la juddoo lan moo sabab li nga xamante ni moo génn àdduna xele boobu loolu lépp daal dinañu koy waxtaanee ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal yàlla may ko xol muñ waaye tamit may ko courage bu mot sëkk comme ni ma koy waxee saa su nekk nit doo ko jàppee ci cëram yu wàññeeku waaye ko dàkkantale chaque jour turu handicapé du si nit ki mais ci xel la nit koo xamante ni yaa ngi dox rek yaa ngi ak li nga xamante ni moo di handicap kon nañu bàyyi eh, xeebaate bi wala ñu bàyyi kii lii la kee la nañu ciy bàyyi xel bu baax a baax te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ci yàlla lañ jóge te yàlla la dellu ñu ngi koy remercier bu baax a baax di ñaan tamit képp koo xamante ni mën nga jàpp ci li nga xam ne moom lay sababu ni muy avocat muy leneen ak leneen bi naka la demee ak ki mu doon bëreel ndax moom dañ ko ne rek sa doom lakk na ñu teg ci ay fan yu néew ñu daal di koy wone ko sa doom génn na àdduna moom nag loolu bokk na ci li nga xamante ni ëlëmp na ko pour moom leeral ko di ko jaajëfal di jaajëfal xalit sama doom sama caméraman di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne ñooy seetaan site bii di wasaare rendez beneen yoon incha ak yenn actualité ak système beneen taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf